ñu ànd ak nag Mamadou Lamine Diante mi nga xamante ne nii àdduna ci keroog bay Ayib Daffé mandataire bu Ousmane Sonko demee fële ca CDC euh, ngir yóbbu seen caution la fa a xew joxe na ca ay explication ñu xooli ko dellu si waat xam nga CDC euh, ñoom dañoo jàpp ne Ousmane Sonko comme joxuñu ko fiche de parrainage kon moom bokkatul rawatina le 19 il a demandé aux Sénégalais de parrainer la fiche de Bassirou Diomaye Faye ñu ne ah sa waay léegi moom xam naa costé na quoi ils n'ont pas pris les devants démb quand Ayib est parti à la CDC waa ji ma dégg ñuy wax ne muy wax ne jox nañ Ayib retourné nañ ko son chèque nañu wax abi Ayib kañ jot chèque bi waa ji moo accueillir Ayib ak huissier bi mu àndal dalal leen may leen café yóbbu leen ci kees bi ñu versé waa ji bind Ayib Mohamed Ayib Salim Daffé mandataire candidat Ousmane Sonko coalition Sonko président 2024 montant 30 millions objet caution pour l' élection présidentielle du 25 février 2024 xanaa gisul mu circulé quittance bi. Mhm. waa ji gunge ay ba ci porte bi. ne ko bonne chance. <laughs> li may wax nii du ay caaxaan de. c'est les faits. ne ko bonne chance. c'est pas lui qui a la décision. <laughs> ñu déglu rek. ne ko ne ko bonne chance. Mhm. ayib génn say naataangoo ne dañ koy tendre micro. Mhm. ayib ne dafay décalé bu ne ko noo taxawal ci estrade bi fii nga def sa déclaration. waa ji ni loolu yëpp am na boo gisee ayib laaj ko ndax li may wax nii du dëgg du dëgg. defal fii ci estrade bi defal sa déclaration. ayib def déclaration. dem assemblée. defaat foofu déclaration. waa ji génn dans la presse. pour ne ayib dafay ñëw na fi déposé mais delloo nañ ko chèque am gisuñu ayib. ku mooy wax ak ni yow nii ayib fanaanu Sénégal. jant chèque bi compte mars la contribuax la. ay ay nekku Sénégal. ay réew mi réew génn na. Sénégal monsieur bi yóbbu na ko maa ko seetaan c'est responsable de communication. nekkul Sénégal. voilà. Euh, alaaji dégg nga kàddu yi nga xamante ne ni Mamadou Lamine Diante expliquer na ko ne Ayib ba mu demee euh, la mu jot a def yëpp ba waa ji bi muy génn moo ko gunge ci porte bi lan moo xew nag si diggante bi ba waa ji génnaat def déclaration wax ne delloo nañu euh, Ayib costion bu mu fi indi woon parce que président Ousmane Sonko mi mu ñëwaloon nekkul ci list yi moo jaaxal Sénégalais yi. waaw li xam nga Diante ñu ngi koy nuyu di wax ni li Ayib def. ayib moom def na li muy def maanaam def na li muy def dem na yoonam. nee nga mat mag ndaw mu mat. waaw ndaw lu mat <laughs> ndaw la ndaw eh, def na li muy def. Mm-hmm. dem na yoonam. Mm-hmm. waa ji nag ci jëmmi boppam li mu def maanaam moo garaaw parce que ginnaaw bi mu defee ba pare. Mm. waa ji dafa génn ne jox na ay jo delloo nañu ko segam mm-hmm. moom la ñëpp après titré. ndekete gisut ayib ba di ko delloo chèque bi hmm, d'ailleurs ayib sax nekkul fi d'ailleurs ayib nekku fi loolu nag wax dëgg fa yàlla man dama jàpp ni yëpp sénégalais yi la parce que mën a ñëw jàkkaarlook sénégalais yi ne leen diw mi fi kii woon delloo nañ ko yëf ki segam te delloo wuñ ko ko loolu moom yëpp sénégalais yi la mais li ëpp solo rek ci mbir mi hmm. mooy loo toujours dama seetaan Pape Sané mu expliquer <laughs> Eh, kuréel gi ab taxawaayam maanaam lii yëpp ñu def mënoon nañ ko bañ a def parce que kuréel gi moom defut lu dul encaissé rek xaalis nee na mënoon nañ ko def sax ci bitigu koñ bi maanaam état bi daal il suffit que mu ne bitig boobooy jël xaalis bi rek mën nañ dem di fa yóbbu xaalis bi hmm. mais bu ñu paree nag ba toll ci war a joxe ñi nga xamante ne bi ñoom lañuy jox seen eh, kii ñu soog leen koo jox maanaam kuréel gi coow lii sax waru fi woon warutoon a am. Ah, mënoon na bañ a mënoon na mënoon na mënoon na bañ léegi nag lu tax ñuy créer coow yi. Mhm. coow loo xamante ni mënoon na ñàkk nga ne yaa ngi koy créer te coow loo xamante ni bi yow yëkkatiwu la parce que fa nga war a daanoo maanaam bu nit di ñëw di fay mhm. xanaa kay dinañ ne nit ki yow li ngay fay lan ngay fay nga ne dama ñëw pour dugal caution ñu ne bi de. ci turu kan nga ne turu Ousmane Sonko xanaa fa lañ war a defee vérification yëpp daal di xool ndax Ousmane Sonko moom bokk na wala bokkut. léegi nee nañ nee nañ kuréel gi moom day jël rek mais bu dee kuréel day jël rek fa ñu war a seggee nañ bàyyi ba yegg foofu ñu segg ko du dëkk. Mhm. bu boobaa problème du am. Mhm. mais il faut que ñu génn ginnaaw bi ay dafay ne dugal nañ kii bi ñu ne ko waaye li nga def moom kiiwut donc yaa ngi ci terrain politique. te terrain politique boobu lañ séentuwut administration di ci dugg mm-hmm. parce que baaxul mm-hmm. dafa am politique foo xamante ni fii fa nga war a administration dafa am fu xam ne fa la war a yem benn terrain yenn yi waru ci war a dugg parce que ñëpp la fi nekkal mm-hmm. donc dañu war a liggéey rek ñoom seen liggéey bañ ci dugal lenn politique buñ nangu mbirum politique di ci rax boo gisee jamono yi ñu toll nii li bloqué Sénégal lu ci bari lool la maanaam gars yi nee da ngay ñëw sax dem ci bureau kii di lijjanti ñu ne la yow xanaa Pastef nga <laughs> comprendre nga maanaam boo nekkee Pastef mën nañ bañ a lijjanti sa problème boo fa nekkut ñu lijjanti sa problème fi mu toll nii am na boo takkoon bracelet peut-être am na kii yoo këyit yoo xam ne mën nga koy lijjanti du sotti mukk mais nag loolu du yoon nag te loolu bu ñu demee ba administration di fonctionner noonu hmm. day indi blocage ci réew mi loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li ci doy waar mais en tout cas vraiment hmm. eh, waa ji moom ginnaaw mi ngi téye këyit gi ba noppi hmm. wëlbati ko naan joxe na ko ku ko dàq comédie moom yàlla sàkk comédien bu mag a ngi. <laughs> Badou kon ah. xam nga si dara en tout amoon nañ ma jambal jaañ